ci biir loolu nag mu am lu mu ci dolli ci waxtaan waxtaan wi weesuwul ñun ñëpp yëgandoo nan li xew ci àdduna sépp ni mu xewee ci àdduna si bis bu set ci biir réew ak bitim réew ñuy tàllal loxo di sàkku ak ñaanam ndax yàlla def ci nattu boobu mu wàcc ci bindee bi sama def ci jàmm def ci yërmande def ci sutura ba woyofal nattu ba te nattu bu weesuwul jàngoro yooyu ñuy dégg ci bitim réew di ko dégg fu nekk doon ko dégg ci Siin di mu ñëw ci Europe ci dëkki Europe yëpp di mu ñëw ci Afrique ba ñuy wax ne daa dugg senegal ah loolu nag sëriñ bi waxtu wu nekk ñin ñaa ngi tàllal seen loxo di sàkku ak ñaan sëñ bi itam mu wax ne ba mu déggee loola la ci tàmbalee ñaan suñu borom tey delloo lépp suñu borom xam ne lépp suñu borom la jóge te suñu borom mi ko indi moo wat ko fi yomb na ko ba boobee la ko serigne bi tàmbalee ñaan tey rafet njortu te rafetale ñepp njortu ne ñaan ko gi sun borom dana nako ko dana ko defal defal nako moy wacc wàcc yërmandeem ñëm daan amé ba musiba amé wala mbass wala bala ñu xamni sun borom la joggé julit yépp delu sun borom ñaan sun borom teggi ko serigne bi lol la santaane mu ne kon yépp bindef yépp delu wat sun borom jégguluwaat tuubaat ñaan suñu borom teggi nattu boobu ci barkeb Serigne Touba noonu la ko waxee woon ba boole ci xasida gi nga xam ne Serigne Touba da koo def ngir ñaan suñu borom ak saafara rag gum fekk ci doomu aadama ñaane suñu borom làqul na ca sangeem ya nga xam ne ku ca dugg mucc ci lépp Serigne Touba ko ñaane noona ba bind ci xasida gi sëriñ bi wax ne xasida gi nañ ko génnee ñu gis ko kenn ku ne fexe ko am te diko ko waxna sax ne dañu genn yenen dolli ci ndax lepp ñaanu jàmm ñaanu ci rek la ginaaw serigne touba mi ko def xamna boromam xamna nu ñu nu mi ñaané boromam te ñaan na ci xasida gi kep ku ko jang musafara la gep ragu ne kon ci yow képp ko jang mu mu duggal ci sangem sa nga ku ci duggu mu ci jep lor mu ci ci pexam non mu ci lepp mu ci setané kon sëriñ Tuubaa bu ko defee sëriñ Muntaxa wax ne kon nañ ko génne ñu di ko jàng ak yeneen yeneen yu ni yoo xam ne danañ ko génnewaat ñu di ko jàng di ci fas yàlla di ci ñaan yàlla di ci fas su borom teggi nattu yi musal na ci ndog yi balaa gi mbas yi sëriñ Muntaxa nee na xam na ne bindee fi day am nañ cofeel ci moom ak doyloo ci moom ak ak yaakaar ak ñaanam ci suñu borom moom it nee na loolu lépp ci sëriñ bi sëriñ Touba la koy delloo di ñaanaat sunu borom nag ci barkeb sëriñ Touba mu yofal natt nattu yi teggi ko dàq ragg googu niñ ko jékki-jékki gisee ñu jékki-jékki noppi ko déggati te luy loo luy luy yomb yàlla la xaw ma zalika an lay bi ansis loolu alxuraan ko wax sunu borom dara dara jafewu ko sëñ mu taxay nee na sunu borom dara jafewu ko kon mi ngi ñaan tey sàkku ñëpp ñu delluwaat sunu borom toroxlu tuub te ñaan suñu borom ci barke Sëriñ Tuubaa mu teggi nattu bi jële fi jàngoro ji kenn ba bañati koo déggati moom nag nee na ni ko waxee woon bu masaan jógee ci coono yu mel ne poroxaan ñaan ñu may ko mu dem noppalu ab diir loolu ñëwaat ci liggéey bi loolu lay ñaan ñu ko mu ne itam ginnaaw nga xam ne wàllu docteur yi wàll seen wàllu suñu borom leen may seen wàll ci àdduna li nga xam ne moom la ñuy digle ñoom ci wetlu wàllu wattandiku ñu di ñu di ñu di ñu sàmmanteeg moom ndax wattandiku ci jaamu yàlla la bokk suñu borom a ko digle fegu wattandiku dafa bokk ci warteef bokk ci li lislaam digle yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko doon digle kon jullit yi itam faaw ñuy dellu ci ñàngalam yonent ba ma gis naa ci ab image boo xam ne ay ilimaan ju ne ca président Siin moo dem ci ci jumaay jullit ya di leen ñaanloo ci yàlla te booba la jàngoro ji door a dugg ci siin kon ginnaaw ñoom ñooña ñoom xam ne bu jafe-jafe amee bu ñuy dellu ci yàlla la ci gën a gaaw mooy jaar ci julli di ñaan barki yonent sallallahu kon noonu itam xam na ne li ci gën a gaaw mooy nu delloo ko ci Serigne Touba ñaan suñu ci barkeb Serigne Touba di laal la Serigne waxoon ne nan nan ko jottali ñëpp dégg ko ne fii la nekk mi ngi ñaan noppalu gi waxoon na ko laataa ñuy wax ne wéradi gi dugg na Sénégal biñ ne dugg na Sénégal itam ñu wax ne cas yi ci amoon ñett la waaye mi ngi doon waaye ñu dem ba bindaat wax ne dafa am ku jógee Italie dugg Tuuba àndaale ko waaye loolu lépp nag sëriñ bi nee na nañ xam ne sun borom daal dara jëfewu ko te luñ ko ñaan ci barkeb sëriñ Tuuba dana na ko may kon nan rafet njort ci ne lépp luy sedd lay doon luy jàll lay doon luy jeex lay doon te luñ lu ci digal ci ni ñuy wattandikoo nu di ko def di wattandiko tey rafet njort ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala